son excellence l'ambassadeur Hassan Nassiri mi nga xam ne moo teewal réewum royaume du Maroc fii ci Sénégal moo doonoon ganu xalifa général di Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou ci aljuma ji dëppoo le 4 mars 2022 fii ci Touba. moom ambassadeur bi bi mu agsee ak délégation bi nga xam ne moom la àndal gatanu nañ ko ci ay kilifa yoo xam ne sëriñ bi moo leen yebal ngir ñu gàttandul ko ganam gu tedd gi nga xam ne moo ñëw seetsi ko fii ci Touba Mbacké moom son excellence Hassan Nasiri bi mu agsee ci dëkk bi jot nay visiter ay bërëb yu wuute muy ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim di université bi nga xam ne sëriñ bi moom lay liggéey ci dëkk bu sell bi di Touba. moom ambassadeur bi visité na mboolem liggéey bi nga xam ne moo nekk ci complexe bi lenn lu ci nekk ñu leeral ko ko. mu nekk lu ko bett lool ndax liggéey bu toll nii jàppal woon ne naal nañ ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba rawatina ñu jëmale ko ci wàllum xam-xam. mu yéemu lool it ci ni nga xam ne noonu la chantier bi doxee ak ni nga xam ne noonu la liggéey bi lépp tegeew ci yoon. moom son excellence Hassan Nasiri dem na it nemmeeku ji jumaay Touba ji. bi mu agsee ñi nga xam ne ñoo di waa daayira mu xaddamatul xidma bi nga xam ni ñoo yor jumaa ji ñoom ñoo ànd ak moom visiteel ko mbooleem jumaa ji leeral ko it liggéey bi nga xam ne moo jëm ci bërëb bi nga xam ne dañu fiy jaamoo yàlla suñu borom waaye it dem na ziyaare barabu Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moom moo sañ ci dëkk bii di Touba. ginnaaw bi it délégation bi dem nañ ca daara xisbu tarxiya ngir sëriñ bi moo leen fa yebal ngir ñu war leen a toppatoo ci ay bernde yu yaatoo yaatu yoo xam ne waajal nañ leen ko ci njiital jëwrinu daara ji di sëriñ yu Diop. moom son excellence Hassan Nasiri bi mu agsee gàttandu nañ ko dalal ko ci dalal gu mucc ayib mu sant lool bég lool ci ngan gu yaatu gi nga xam ne amal nañ ko ak mboolem bernde yi nga xam ne moom lañ ko waajal ak délégation bi mu àndaloon. ginnaaw bi moom son excellence l'ambassadeur Hassan Nassiri bi nga xam ne moo teewal réewum Maroc fii ci senegal ñëw na gisee Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou mi nga xam ni mooy xalif général des Mourides saafonte ak moom Serigne bi dalal ko ñu waxtaan waxtaan wu yaatu woo xam ne. moom gan gi bég na lool ci ganale gi nga xam ne ganale nañ ko ko ci dëkk bu sell bi di Touba waaye it mu amaat mbégte lool ci dëkk bi li nga xam ne moom la fi gis muy jaamu yàlla gi nga xam ne fonk nañ ko lool waaye it ni nga xam ne noonu la dëkk bi bindoo waaye it lu bëree bëri loo xam ne xam na ko ci ñëwam gi ndax leeral nañ ko ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba mu am ci mbégte gu kawe lool